laa liggéey wala cat jàpp la nga def lii ma lay bëgg a wax te nga avertir sa njaboot ndax nit ñi léegi maanaam nit ñi moom dañoo feebar ndax da gis léeg-léeg sax nit yor yor yor moto bu ndaw rek nga commencé am xolub iñaan goo xamante ni maara day taw waaw waaw bindal sóoratul xamar xamar aaya bu ne nga bind ko ak xalima boppam boo paree nga dagg catu xalima yi lakk ko ba mu nekk dóom nga boole kook saafara si kon da ngay wut nombre aaya yi. waaw lu noonu ci xalima. ci xalima nga dag nga nga bind ko aaya bu ne nga bind ko ak xalima boppam boo noppee nga dagg cati xalima yi nga lakk ko ba mu nekk doom nga def ko ci biir saafara si wutal mbubbu mbubbu jaan rek ni ko ci pëy sotti ko ci sangoo ko juróom-ñaari fan. ku la liggéey moom dana dem armeel ak ku mën a doon. waaw maanaam foofu la àdduna toll. ndax léegi asal baax na ku lay liggéey. lu ñuy liggéey yow ku lay liggéey doo fexe mu dee nga naan yow. baax na. ëpp naa def yow ki lay liggéey dalaa bëgg a rey de. ko njub rek. léegi lii boo ko defee pour liggéey de foog nga répété waat. ñaanal ko njub rek maanaam soratu xamar ngay bind. nga bind ko bu ci ne ak aaya aaya bu ne nga bind ko ak xalima boppam. boo noppee nga dagg cati xalima yi nga daal di koy lakk cati xalima yi ba mu nekk dóom nga def ko ci biir saafara si wut mbubbu jaan def ci biir sangoo ko juróom-ñaari fan wala nga sangoo ko benn yoon avertiral sa famille sa soxna avertir ko say rakk avertir leen say say yëpp avertir leen ndax ku la def dara dana dal ci kaw maanaam dana dal ci kawam bu gaaw a gaaw a gaaw amul ma dem te ñëw. bu dee da ngay def li ñuy wax journalisme ngay wax di liggéey ci wax. nga bañ a am. accident lami ilayhi yashhadu kalimu tayyib wa amalu saalihu yarfa'uhu nga bind ko 70 bolé ko ndoxum zamzam diko galax ko wala ngay koy nan insha allah rabbi lo wax dana saf nit ñi budé ko xamanteni ni dafa nek bëgg sunu borom jox ko wërsëgu aduna bu doy sëkk jël leen ñi ñett sangat yi may joxe alxuraan 114 sar la waaw ah saar bu ne. Hmm. da ngay bind aaya bu njëkk ba bind aaya bu mujj bi. bopp aaya bi ak fin bi. bi ba pare nga bind aaya wala xadd karam naa bani aadam ba aaya bi jeex ba aaya bi jeex nga doog bind deuxième aaya euh, deuxième saar bi. troisième saar bi ba ca cent quatorzième saar bi boo paree nga dajale yépp wut ndoxum géej ndoxum teen ndoxu dex wala nga wut ndoxum géej ndoxu zamzam boole ko di ko sangoo. te sellal sa yaram sunu borom dana la jox xam ne doo soxlaal kenn dërëm. ba tey jii boo bindee aaya bu njëkk aaya bu mujj aaya bu njëkk aaya bu mujj aaya njëkk aaya mujj ba 114 saar yépp jeex nga jël ko def ko téere takk ko ci soo oto oto bi du accidenté. incha allah incha allahu rabbi te heure boo wàccee oto boobu oto bu ko dàq ngay am. ndax yaa ngi dégg baax ni ma la wax. ba tey jii boo bindee aaya bu njëkk. aaye bu mujj diggante aaya diggante saar wu ne ci 114 saar yi nga def war a kafaru bi aydihim lam yanaalu xayran ba ba ba aaya bi jeex nga boole ko xasum xëy di ko sangoo mbooleem lu mu fekk ci yow dana dañ te ku la ko defati day dellu ci maanaam aaya bu njëkk ak bu mujj laa desee comprendre comme léegi tey fansurna alal xawmil kaafirin jeex na léegi comme comme léegi bu la neexee rek boo comme ni exemple alhamdulilahi rabil alamin xayril maxdubi alayhim wala daalin waaw kay aaya bu njëkk bi aaya bu mujj ali imran nisa maida anam araf anfal tawba ba saar bi ba ba ba saa ba alka ba kaamil bi jeex nga def ko noonu insha allahu rabbi sunu borom dina la dimbali barkallah macha allah waay sëriñ bëggee di jot ci vidéo yu am njëriñ yi bàyyi ko fii ci sama diine tv da ngay ñëw bés fii ñu bind sabonné soo noppee nga daal di activer cloche bi mooy waral benn njëriñ du la raw